Xaasim Touré nag ak man c'est une longue histoire parce que man na moom def nañu 17 ans 17 ans bare na barawul wante si suñu métier soo dépassé 3 ans rek bare na parce que 3 ans yooyu may wax mooy 3 ans de stage lu ma xam si droit moo ma ko jàngal donc ba ma pare mënoon naa dem wante dew ma. dama toog di collaborer ak maître Khassimou Touré li ma fa yàlla moo xam man xam na lu ma mën a wax si moom mooy que Khassimou Touré c'était un homme véridique un homme social nit ku baax qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses collaborateurs Khassimou Touré mooy nit koo xam ne tey soo ko comprendre mënoo nekk ak moom donc su ma demee toog 17 ans ak moom ça veut dire que y avait une certaine complicité entre moom ak man suñ di ay rapport professionnel moo nu boole woon mais man a Khassim Touré c'était plutôt des rapports familiaux parce que ki ma fa indi ma koy xoole Khassim mu ma koy xoole mu doon président Lamine Coulibaly denc sama sœur avocate ñett Mame Penda Sakho moo tëye woon sama loxo ba ma moment bu ma réussir baro bi yóbbu ma fa ni ko dénk naa la ko former ma ba ba muy génn àddina ñoom ñaar jege woon man te xaasim du wax ni war na ko parce que toppatoo na ma dimbale na ma dimbale na cabinet bi maître El Hadj Badara Ndiaye bii nekk si mën na ko seede madame Meng qui est secrétaire assistante de direction, Maître Mamadou Gueye, qui est avocat collaborateur du cabinet, de même qu'Aline Elage Badara Gueye, qui est le clerc du cabinet, et Abdourahmane Diev, le coursier du cabinet, nous sommes tous pour une dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu un frère, on a perdu un ami. Nous, les avocats, on a perdu un confrère, on a perdu un formateur.